jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb nuyooti nañ leen am kontaan ak mbegte comme nuñ koy defee saa su ñu ngi fii ci Pikine waaye fekk fi suñu papa suñu père koo xamante ni ci làmb la boole uuf ñëpp ñu doon benn yaa xam nga bokk ci écurie ak bokkook moom écurie képp ku dajeek moom làmb di nga gis relation yi mu am ak yenn mbër yi di conseiller xale yi bëgg fa mu tegoon tànkam ci làmb ngeen ko fu raw tey moom lañu seet si muy Père Jules ñu waxtaan ak moom ci làmb wax fan la toll ci làmb combat bi nga xamante ni yëg nañ ko ñii di am jiixi jaaxa ba xam combat bi dina amam du am ban position la ci gis ak nan taxawaay la ci taxaw kon nañ koy nuyu ànd ak moom waxtaan ak moom ci làmb per maa ngi lay nuyu. maa lay fay sant yàlla julli sant bi sant suñu ñaari waajur sant sama sëriñ Atem yàlla bi yàgg te wér sant njaboot suñu faalu yëpp waaw. père noo gisee làmb diggante daaw ak ren daaw bëri na ci mbër yoo xam ni jàpp nañ ni ay champion lañ ci làmb ñu def année blanche ren mu ngi mel ni mu ngi koy waaja a xeeñ lan nga gis ci loolu. waaw làmb ji moo doxatul quoi moo doxatul la sponsor bi ñëwatul waaw te pare encore làmb ji en tout na métti xam ne comprendre booy am lu ñuy yaakaar loolu làmb lañ yaakaar. métit gi ci ñaan la promoteur yi yi wala sponsor yi lan moo téye loolu. waaw ah, si promoteur yi lay doon ci promoteur yi ak sponsor bi. moo tax waaw foofu côté boobu la yàqoo quoi. Hmm. lan nga jàpp ni moo ko war a mën a defar. waaw delloo ba làmb toll fi mu tolloon. waaw sponsor yi lay gars yi di waxtaanal rek. waaw sponsor la gars yi waxtaanal gars yi teg si teg ko benn fulla benn fulla fay dama am si quoi. Hmm. làmb de la fi mu newoon. Hmm. nit ñi ñu ngi waxtaan ci làmb lu bari. ñu nee nañ fi mu toll nii ci kaw dafa manqué ay mbër yoo xamante ni mbër yu am doole lañ wala mbër yi ñu bëgg a gis ci làmb gisaguñ làmb parce que dañoo sonn ci combat Balla gay tafaatin Tine Balla Gaye Gris Bordeaux Balla Gaye Modou dañoo bëgg xale yi jóg ñëw ci làmb loolu jot nañ ko gis ci combat Ama Baldé ak Modou Lo ñu ne taxaw na Balla Gaye saa euh, Boy Niang ñu ngi koy wax Sa Thiès ñu ngi koy wax digganteem ak Eumeu seen ñu ngi tudd yeneen combat guy gi euh, Gris Bordeaux wala guy gi Eumeu Sène noo gisee loolu. waaw loolu moom loolu dafa loolu loolu rafet la. waaw Siteu Siteu mu war a sa muy war a bëree. waaw Sow yooyu ay loolu dafa si baax quoi xale yi fekk si mag mag ñi quoi ñu jaxasoo bëri wala si baax loolu moo tax ndax ñoom bu ñoom yëkkee ne Tyson jógee fii comprendre beneen révélation ñu war a ñëw. waa léegi ñoom Balla Gaye egsi nañu léegi ñoom Balla Gaye egsi ñoom Ama ñoom Ama ñoom Sa ñoom Boy ñooñu egsi ñoom guy gi egg si ak ñoom Siteu ñoom ñu ak rëg-rëg ñooñu ñoom ñu egg si Rose ñooñu ñëpp gars yi egg si la si gën a baax a day tax après mu gën a développé. Er, ana Ama Baldé. ah mi ngi fi. Euh, mu am lu ñu bëggoon waxtaan parce que saison bi doon na mbër boo xamante ni ñaari promoteur bëggoon nañ combat benn bi ñu dem ba naan taxaw na muy diggante ak tafaatin ñu dem ba ci digg bi ci càppandaw gi ñu gis ni combat boobu taxawul mën nga ñëw expliquer combat boobu lan moo tax taxawul ak lan moo téewoon combat boobu. waaw xam nga combat moom taxaw ba taxaw combat yàlla mooy bind ne combat yow diw mi ne bëri saison bii. waaw ah, du sa coobare sa coobare moom bu sañee mbër moom ku nekk la bëgg a bëri waaye yàlla mooy bind coobareem kat lii la war a bëri daf na dimension mu bëri ku musul bëri sax moo tane ndax bëri na tafaatin mhm. comprendre mu bëri koo xam ne musul bëri bëri Modou Lo wala mu bëri Gris Bordeaux wala Bombardier comprendre ñoo ko am bëri ñoom mhm. moo ëpp sens quoi mu topp rek di bëriwaat loolu après moo tafaatin dañuy bëriwaat waaye nag bëri ñoo xam ne mosoo bëri ñoom quoi moo si gën quoi waaw kon ni nga waxee dafa mel ni tafaatin sàcc bu dul rëcc la jarta yàqi ne la waaw loolu ma kon booy kon dëgg nga olof quoi loolu demee quoi ndax tôt ou tard dinañ bëre mook Ama léegi dem jëli keneen koo xam ne mosul ñoo daje da koy gën a neexal. waaw da gën a neexal day tax lamb ji gën a mën a ibbeeku wala fekkee da nga koy si benn ay nit rek ngeen dem ku nekk ngeen bëreewaat bëreewaat day tax lamb ji tëju loolu tëj lamb ji bu Balla Gaye bëree Boy Niang am ma seen bëree saa kees guy gi bëree kii kii bëree kii day tax lamb ji gën a développé. gën a ubbeeku. ci xale yi ñëw ci kaw. waaw loolu la ci ponkal yi ñu mbëkkante. waaw loolu mu gën a neex waaw ñu jékki-jékki gis ni Ama Balde ju na ci ci kombaam moom ak Papa am ndam ci kawam ñu toogaat ñu naan diggante bu Modou Lo ñor na ñorut ñi naan du taxaw dina sotti du am ak dina am ñu dem ba ci digg bi dégg ni combat bi taxaw na am lu ko gàllankoor promoteur bi dëgg làmb ji nekk ci loxo yoon ñu naan combat bi amaat na amul amaat na mën nga ñu confirmer ci kombaa bi fi mu commencé ba taxaw bañ naan taxaw na ak fi mu toll nii. waaw ah, combat bi moom combat bi moom boo waxtaanee promoteur ba jubóo si kàddu quoi moo xam ne combat bi taxaw na. ne Luc Nicolas fi mu nekk foofu na ko fa yàlla jëlee foofu gars yi gouvernement a xool xam ne carrément Luc la day jàppale làmb quoi war na si xool. waaw li mu xasee tëj Luc rek dañ tëj tëj nañ ñëpp ndax mbëri si bëri lañ yaakaar bu ñu tëjee Luc Luc joxul kër yi dina métti de te encore yeneen mbëri le comprendre gouvernement bi nañu xool comprendre jëm si jàpp mu génn kon ne làmbam jàppale waa réew mi state mi ngi def liggéey réew mi la bu dul loolu mbëri dañuy jël gaal dem di moodu moodu ji dem si dëkk ba di jaay ay ceinture wala di liggéey si ay boîte di garder ay café comprend waaw léegi si jàpp rek Macky président bi Macky Sall yow laa wax président bi jàpp si rek waaw jàpp teg sa loxo rek sëñ bi nga nga dimbali ko rek génnee ko waaw li ñu ko ak kunne lambam comprend mun a dimbali nit ñi waaw ndax moom kon muy def ko dimbal la ndax bu tëggee dina tëggal bon beneen mbër kër gu nekk ah, kër gu nekk yóbbu na fa 30 saako ceeb ndax ku si am combat da nga jënd ceeb da nga jënd diwlin di nga joxe dépense fay courant fay ndox ah kon léegi moom mokkal muy jàpp si réew mi de muy léegi si de Macky jàpp si waaw. papa président Macky Sall ñu ngi lay ñaan suñu papa nga ñu lay ñaan rek euh, bu fekkee mën nga cee dugal sa loxo nga dugalal ñu sa loxo. suñu papa ko laa yàlla suñu borom génnee ko fële mu nekk ndax làmb soxla na ko te jeunesse làmb soxla nañ ko ñu jékki-jékki ne Ama Baldé jot na avance diggante ak Modou Lo avance boobu yaa ko jëli woon combat boobu loo ñu ci mën a wax. waaw combat bi xam nga rek combat moom boo xaasee jël avance comprendre bëre moo tax jël avance avance moom boo xaasee jël combat taxaw na. voilà loolu la des mooy signature contrat ak avance bu jógee CNG ñu toog moo tan joxe date bii date bii ngeen di bëri surtout loolu dong la kon Jules jot na avance mën nañ Sénégal gépp mën nañoo xam ne Jules Balde jot na avance boo xamante ni diggante ak Modou Lo la ko war a bëri. waaw diggante ak pour ma promoteur bi jox nañu avance. diggante ak Modou pour waxtaan ak Modou ba juboo ko waxtaan ak ba juboo fu ñu toll des. mooy yàlla dimbal ko mu génn foofu président bi teg si loxoom jàpp si mu génn foofu kon ne ay signature ay contrat am ay événement am comprendre làmb ji gars yi ko si jàmm a daan ko si jàmm nit ñi bay jàmm waaw. waaw loolu moom sa sañ-sañ la Pierre sañ nga ko wax waaye dafa am lu xew ñu ne 4 février dañoo war a def jàkkaarloo ñoom ñaari mbëri mu dox ci diggante Père Birame Ngingue di ménageur Modou nangu na Père Abdou Bakhoum yaakaar naa moo yor Ama Balde. moom it tamit nangu na ñu jékki-jékki dégg ne Jules Balde nee na buñ ko xaatimul ci kayit moom signature contrat bi du ca ñëw mbërëm du ca ñëw. non wax ma non signature contrat balaa ñu koy def dañ koy xaatim ma doo jékki-jékki ñu la signature contrat suba ngay jóg nga dem nga mel ni benn saaru sareetu mbaam rek. Mm-hmm. bu ñu taqee mbaam bi rek fu mbaam bi yóbbu mu jëm déedéet. Mm-hmm. après kayit la kayit la. bu lay bu lay awee lay ah, a xëy rek <laughs> dem def signature signature man man mbër bi la war a def signature bi balaa muy dem si kayit la bind si kayit si kayit lay rek lamb lamb lamb lamb léegi moom la kayit ngay bind si kayit ngay tënku waaw bu la convoqué 3 heures 3 heures ngay ñëw bu la convoqué nga ñëw waaye lépp si kayit la ay convocation la hmm. waaw loolu la. kon signé góor leen benn xaatim buy wane ni am ngeen signature contrat le 4 février. non signé guñu de signé guñu benn xaatim boo xam ne signature contrat fii de waaw signé guñu ko. du ci bi du ci manager. waaw non signé gu signé ko. Hmm. waaw. te buñ ko signé wul ba moment bi kon mën nañoo njort ni Ama Baldé du ñëw ci signature boobu. non signature ba am balaa ñuy signature il ñu bind ko ko lettre ne ko signature temps la war nga signé war nga signature temps bésu temps comme ni comme waxe gars ñi waxee Birame mën nañ ko wax manager am waaw wala mën nga encadrement ne ah Amadou day signature ni bind ko lettre ñu xam ne li lettre bi xam ne carrément jour bi la war a signature waaw lool la. jotoo leen lettre joto leen dara wala ci presse bi rek ngeen ko déggee. ah ci ko déggee rek waaw bu ñu jotee lettre moom signature fu ñu teg signature ñu fekk leen foofu. Modou duloo gis nga li mu def ci ci ci ci diggante daaw ak ren daaw bëri na ci ñaari combat sortem bu njëkk dafa bëri Balla Gaye 2 ñàkk ko. deuxième sortie mu am Eumeu Sène couronne bi nekk biir Pikine mu dugg biir Pikine foqat couronne bi yóbbu ko Parcelles Assainies bi nga xamante ni mosuñoo dégg couronne roi des arènes tey Ama Baldé jëlaat revance boobu ne daa pare pour nangu li Modou Lo jëlee woon Pikine mu delloowaat ko Pikine lan nga mën a wax ci loolu. waaw loolu xam nga Modou Lo moom dafa def dafa def yoonam comprendre am say tolof tolof am say bànneex ba yàlla may ko mu jël roi des yóbbu ko parcelle quoi feete ko foofu feete ko waa mbokkam parcelle yi quoi. dut na yàlla yàlla dogal combat am ama taxaw comprend am war a préparer ànd ay mbokkam moom kon récupérer bi ndaat ko Pikine waaw loolu lay demee. njortu nga ni bi dina duggaat Pikine. waaw bu soobee yàlla yow ma yàlla mooy maye moom waa nuyu ñaan si yàlla moom yàlla nañ ko yàlla may si barke Sëñ Fallu. <laughs> damay gis da ngay ree rek père dafa mel ni combat bi bu fekkee euh, njortu laal li am la fu ngeen ko teg de. non ñu ko fenn loolu entraîné am doole bëre bëre bëre la rek. entraîné am am doole rek bëre. waaw Modou Lo Ama Baldé ko ëpp doole. waaye xaar ba jour ba rek am moom jour ba moom jour ba jour ba jour ba rek jour non bu dul war ngaa mën a gis ñaari athlète xam ne ñaar ñi kii moo ëpp doole waaw ñoom ñaar kan moo ëpp doole. ba jour ba bu jour ba di xam ko ëpp doole lam moom moom rek bu jour ba di xam ko ëpp doole rek. non bàyyi ba jour ba rek. doo doo doo gàtti làmb xam nga. waaw non xam nga làmb moom fi mu toll yow may yow question sax di ma kii sax yoo xam nga nu mu demee sax comprendre xëy na yaa yaa bañ a wax sax mun nga répondre waaw. ku dàq xeex. waaye dama làmb ji moom amul da xam nga làmb bëre bëre xam nga bëre dóor. Modou Lo de dóor mbër mu daanu. dëgg gis mbër bu mu dóor moom. non danga naan kon ko si làmb ba nga ñëw si làmb yàggul. topp naa ko ci diggante usu Ndiaye ba ci diggante ak Papa Sow moom Ama Baldé. foofu foofu nga yem quoi ay suñ ay ñeneen ñi. ko ci combat yooyu yëpp. ah mu doon daanu bëri de waaw. ama ah, loxo bi dafa am toogeel loxo gaabu nga dafa am toogee. kon da nga bëgg a wax Ama Baldé loxo bi fu mu ko door Modou Lo buntu feeñ. dama ne waxuma la dóor buntu feeñ ja bu ko bu ko ne làmb ji la yàlla na yàlla defal jàmm rek yàlla na yàlla defal waaye nuyu waa monde bi yëpp nuyu Sénégal waa Guinée Bissau ah. nuyu waa Kolda nuyu waa Tamba waa Farafeñe waa Guinée Seexu Touré tur ñoom ñëpp maa ngi nuyu waa Mali sama rax bu nekk mal moom Modou ñoom ñëpp ma ngi leen nuyu Mauritanie ñëpp maa ngi ma nuyu nuyu waa Pajama waa Guerrero Bokar ñëpp maa ngi leen nuyu di sant ñëpp wasalaam. combat bi ban date lañ ko jàpp. waaw combat bi non il faut il faut nga xam rek combat ba lañ koy jàpp il faut gars yi régulariser ñu mën a joxe date. waaw pour mu tam mën a wax date bi fekk date bu amu ko CNG boobaa. Mm. mu rek il faut mu régulariser combat CNG ba pare rek CNG jox ko date. Mm. waaw si nga xam jërëjëf ok merci sant nañ la gërëm nañ. ok jërëjëf. jërëjëf mbokk yi gis ngeen suñu papa Jules Balde la mu wax waaye Modou loo Ama Balde rek mbokk yi ju yóbbu ko arrêté la sa laal tëj barrière yi ñoom ñaar ci digg géew bi loolu njar ndéem la jar na lu ne loolu la wax te bokk na ci loo xamante ni lépp day defar làmb bu ko CNG bi déggee wala amateur yi dégg ko jotali ko CNG bi wala amateur yi déglu ko. jotale ko ki nga xamante ni mooy promoteur bi tëgg làmb ji ngir làmb jooju jàkkaarloo bi ñu bëgg a def la 4 février yàlla suñu borom sottal ko mbokk yi kon noonu la leen tàggoo ci tàggoo bi nga xamante ni moo du tàqali ko ba ëllëg incha allah ci beneen xew-xewu làmb jaa ngeen jëf.